dafa yëkkati ay kàddu yu dëgër jëmale ko ci njiitu réew Macky Sall mi nga xam ne nee na ñu warul bokk ci jongante présidentielle waatub 2024. Macky Sall loolu xam nga ni doo bokk xam nga ni bu ma la waxee doo bokk doo bokk. mbokk yi kenn moo dul bokk ndax warul bokk mënul bokk. te du bokk président Macky Sall waaye ñëpp. wul comme niñ ko waxee sànq ñaari rakka waaye li ma jaaxal ci imam bi imam bi faatiya bu jub mutu ko Aïda Mbodj mii di militant yu Pastef di woowee yaayu Sonko daal dinay rafet lu mobilisation ba waaye nag ki fi nekkoon ministre de fem ci nguuru Abdoulaye Wade daal dinay woo membre yu F24 yépp ñu taxaw jàmmarloo ak Macky Sall ngir xeex ak ak yelleefu doomu aadama yi ñuy salfaane waaye itam dund gu cher gi mu ngi def ay stratégie bi njëkk mooy confisquer les libertés léegi dafa mel ni prison Rebeuss dafa mel ni mooy yi ñëpp ñi nga xam ne ay démocrate lañu bàyyiwul journaliste bàyyiwul homme d'État plateforme F24 mi nga xam ne dafa boot lu ëpp téeméeri parti politique ak ay mouvement naka noonu ay organisation société civile di kontaan lool ci ndaje bu mag mi nga xam ne daan nañu koy amal tey jile opposition ba nag mu ngi woote beneen manifestation ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mee gi ñu nekk ngir xeexal Ousmane Sonko ba mu mun a bokk ci jongante présidentielle bu atum 2024